ngi leen di jagleel nuyoo bi gën a tedd muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ko tibbee ci suñu xol di ko jëmee ci seen jëmm yu tedd yu sell yi di ñaan nuyo bi ñi mu fekkee ci jàmm ak ci wér ci teraanga xéewal yal na sax ci ñoom sax ci ñun ñi mu fekkee ca safaan ba moo xam dañu feebar feebaru yaram nekk ci hôpitaux ya wala ñu koy sooxaale yal na yàlla saafara leen saafara gu ànd ak dund bismihi shaafi ñi mu fekk tamit yaram yi wér na waaye poos yaa feebar muy jàngoro ju xaw a yaatu yal na yàlla saafara jàngoroy poos yi comme ni mu saafarayee jàngoroy yaram yi bu buñ taxawee jot buñ toogee jot buñ tëddee jot te luñ jot yàlla nañ ko jotale waajur ya ak soxna ya njaboot ga ñi nga xam ne timit nuyoo bi dafa leen a fekk caabi féete leen gannaaw te ku sañoon sa caabi féete la biir nga tëj sa bopp digi sa bopp waaye koo dégg ñu ne caabi féetee na ko gannaaw rek jàmm neexatu fa moo tax yonent bi baayoo la jirim la juróom benn weer la am baayam génn àdduna ci biiru yaayam ju tedd ja mu juddu am juróom-benni at ñii ne ñeenti at yaayam génn àdduna ñi jox baayo bi ak jirim bi maamam ji jur baayam di Abdul Muttalib mu teg ca ñaari at mu fekk juróom-benni at ya muy juróom-ñetti at ci dundam eh, baay maamam Abdul Muttalib génn àdduna dénk ko bàyyi taxam bii nag ma bëgg laa wax di Seydina Abu Talib mi nga xam ne mook baayam ñoo bokk benn ndey ak baay moo ko yar moo ko yor. ba yonent bi am ñaar fukki xat ak juróom mu takkal ko soxna sayyidatuna Xadija xutba fa xutba gu kenn mosta dégg ne sama doomu mbokk mii de suñ ko doon peeseek mbindeef yi ci jamono ji ci koom-koom ñépp daan ko ndax ñàkk dëgg moo ko dal ndax ñàkk piir mooy yoroo yoroo ku yor moom ci boppam yorut te man mii la yor te yoruma dara su boobaa kon ñépp a ko mën a daan ci koom-koom waaye jikko yi ma gis ci moom ak mbaax gi ma gis ci moom buñ ko doon peeseeg mbindeef yépp mu daan leen ci mbaax keroog daal xutba googu la xutba ba ñuy ñaanal yonantu bi soxna ah, moo moo ko yar moo ko yor ba mu am ñeent fukki at ñu yónni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam weddi ga bëri ca xéeféer ya saaga yaag loraange yaag métit wa dal ci kawam dal ci ay sahabaam ba mujj sax ñoom ñi def délégation ñoom yéeféer ya ñëw fekk si Abu Taalib ne daal wéet rek la bañ suñ ko joxee ku koy wéttali rek danañu jox doomam doomi mbokkam mi ñu jël ku ñuy wax Amaaratu bnu Waliid ku rafetoon la ne daal nañ ko ko jox mu yor ko fu mu bëgg mu féete ko mu féete ko fa tamu mu jox ñu doomi mbokkam mi ñun ñi ray ko waaye dëgg-dëgg xéeféer a xel ku ku xas bañ dootoo gisati bañ waxee lii Abu Taalib mu ne bu giléem jof see teggi doom ja li ngeen bëgg ma defal leen ko naka laa leen di joxee ku ngeen di rey ngeen ngeen ngeen may jox ku may yor ba d'accord naa waaye na fekk giléem ñëw euh, jof si teggi doom ja loolu nag ña ca caawa ga ñoo ko xam xam nañ ne nag yay nàmpal bu ñuy ñëw rek seen doom ya lañuy ñuy njëkk yittewoo seen doom ya tamit ñoom la ñuy njëkk a yittewoo ba bala ñoo ñëw sax ndeysaan ña ngay nàññi di leen xaar kon loolu mën ta xam ndax dafay dafa dafa yéegal dafa yéegal sarta ba ci loo xam ne mustahil la manta ne su boobaa nag saa yoo yéegalee lu manta ne su boobaa kon la ngay la muy tekki rek mooy li ngay wax manta ne du xam mukk moo ko yar moo ko yor ba yonantu bi am juróomi at ca yonantoom nga ay saxaabaam ñi leen di lor di leen di saagaaka dóor di leen di xasaka seen del ci safarawe ki sànni xeer te diggal guñ leen woon xare mujj gi daal coono ba metti saxaaba yi def délégation ñëw fekk yonantu bi toog ñu ne ko coono bi métti na gëm la moo métti féetoog yow moo métti xaritoog yow moo metti lu ne daal ñu ngi ñu koy dagale ci lii yonantu bi ne dem leen ngeen muñ ñoo ña demaat ab diir bu yàggut muñ nañ ba mënut ñoo muñet ci ñi defaat délégation ñëwaat ci moom ne ko daal suñ muñee daal mi ngi bëgg a jeex ndax xol bi war a muñee ci lañuy jam saaga yeeg xasta yeeg dóor yeeg mbugal yeeg doxadal ñoo génne yuñ génne kër yeeg tumuranke gi metti na ci la yonantu tubi nag fekk dafa sukkandiku woon mu jug toog ne leen ña leen jiitu woon na ngeen roy ca ñoom kenn ki ñoom daana wax na gëm naa yàlla rek ñu jël si ñi si xare bant yi teg ko ci boppam bi def ko ñaari xaaj te du tax mu weddi yàlla kon nag gëm leen yàlla te ngeen muñ tarooy ca ña leen jiitu woon ñoo ñooña demaat ba ci kanam mënatuñoo muñati ñëwaat wax ko ko mu ne man mii de aw ma ndigalal gàddaay yi waaye ku bëgg a dem rek yeewi naa la man ngaa gàddaay yi dem Éthiopie ñu ko daan wax booba ki jamono la xabas seen buur ba ñu ko daan wax najaashi yu donte turam mooy asxamatu waaye dafa boo demee ci Cheikh na Tijaani mu ngay jàngale àdduna bi jooja jamono fenn fu ne boo fa nekkee buur nañ lay tuddee mu wuuteeg sa turu bopp wi boo nekkee ca Kisra ñu lay wax Kisra boo nekkee ca Kaysar ñu lay tuddee Kaysar fee ñu tuddee Xaaxaan ñi ñuy tuddee Tuba ca buuri buuri Himyar ya Ah, ñeeti mi ñu leen di tuddee najaasi yu ca buuri Éthiopia mu ne kon nag ku mën a dem na dem man amaguma ndigalal dem foofa daal ca saasa fukki nit ak ñaar di ay góor ak ñaari jigéen ñoo départ jaafar jiite leen ñu luye gaal fay ca genn wàllu dinaar ne ña ngay gàddaay bañ demee nag timit buur ba dalal leen najaasiyu tatagal leen ñi dégg na nag léegi nag waaye euh, waa yi màkka yi dégg ko xut seen wurus bëgg a dem nger bëkk néegi buur ba te mooy dag ya te loolu yàgg na fi ñoo xam ne ñooy xulool buur bi di ko waxal di ko sosalal ñu yëkkati wurus wu bari jox leen ñu jiite woon délégation mooy Umar ibn yi ku mënoon a wax la ñu jël wurus wa jox ko ko mu dem nger buur ya nger maanaam Euh, bëkk néegi buur baag ña ko jege ngir bëgg lu mu wax keñee rek ñoo nga dëggal ko gis na buur bi yëkkati wurus bu bari jox ko ko ne ko daal am nañu rëccee ci suñu réew ma ñëw ci suñu sa réew bi yàq rek moo tax ñi bàyyeekoo fa dañ fa nekk daal di deseel suñu xel yi dañ fa nekk daal di saboote suñu yàlla yi wax wax ju ñaawa ñaaw daal ca ñoom ne nag daal yow suñu xarit nga dañuy bañ yàq sa réew mi loo man na nga gaaw nga génnee leen ko bañ waxee loolu nag ñañu nger di bëkk néegi buur yaag dag ya dëggal ko ne waaw waaw wax na dëgg de nangam ak nangam dégg nañ seen xibaar de fekk dara du ca dëgg wurus wi ñu leen jox rek lañ bëgg a reesal te loolu day am tey ci pale yi ñoo xam ne ay pànk lañuy doon di xulóoxal buur bi di xasle président bi jubluwuñ ca lu dul mën koo sàmmee seen place ya ñooña nag ñu dara ñu jara daw lañ ay fagon lañ yoo xamee ne nii bis boo follee ko ñoo lay xas ndax lañ xam ci yow ñu bari xamuñ ko bu keneen faloo ñu yël sa secret dem jox ko ko ànd ak kooka yore jikko yu weñ fu tooy rekk ñi dal te loolu neex naa jàngale ci Sénégal gile nga xam ne tabaarakallaahu Euh, ku fi nekk rek li ci xëpp ñu nekk feeg yow boo fi nemmee nekkati rek ñu bàyyi la boole ko di la xas ñaandoo nag Ablaye Wade ca bëri tey ànd nañoo ñi fi ne di leen di ko xas ñaandoo nag moom Abdou Diouf ñu ca bëri toxalu nañ ànd ak Ablaye Wade doon xas du juuf ñu ca àndoon nag Senghor tamit bi Abdou Diouf xewee noona àdduna tamit noona rek la ñu ci bëri dañoo yor jikko yooya boo xewee ñi xew ànd ak yow. saa yoo xewee tamit ñi nekk ñi ànd fekk ku fi xew su boobaa nag kon ku jiite am ñu nekk ci sa gannaaw ngay sëriñ ngay limaan ngay ab gouverneur ngay ab maire ngay ab ministre ngay président war ngaa bàyyi xel sa entourage bu baax a baax a baax ndax ku fi yàqule lëg la moo la yàqal te lu jafe la ci suñu réew mii nga mukki ci entourage boo xam ne bu bon la ndax ñu ci bëri ñu lay ñu lay ñu lay wër di la tagg bañuñ dara dund rek lañ bëgg feeg ña ngay mën a dund rek garaat bu ne mën nañ la koo takkal waaye tamit feeg ña ngay mën a dund rek lu nit baax baax baax mën nañu këti ay kàddu xas ko seetuñ ci seen diine seetuñ ci seen ngor seetuñ ci tamit seenu askan seen yoon nekkul ca loolu nañ dund rek su ko defee nag loola baaxut jikko ju bona bon la te loola di mbalit moo xam ne bëri na lool ci suñu réew mi yal na yàlla rafetal jikko yi te raxasaat ko ba mu leen waxee loolu nag ñooña di fagoo ya war buur ba najaas yu wax wax ju bon jooja buur bi daal ku ku am fulla la ne li ngeen di wax daal gisuma ko ci ñoom jàllar bi ko yëkkati kado yañ ko joxoon delloo leen ko fab jaafar xoo ko nag gannaaw ga ne ko fekk ñoom dañ ko da daanee xitaab ba ne ko discours ba ne ko soo déggoon li ñuy wax sax yonentu yàlla Isaa mi nga gëm xam nga nit ki boo ko bëggee Euh, euh, boo ko bëggee jaxase da nga koy da nga koy dëgër da nga koy jaaree ci pas-pasam te booba moom ab nasaraan la ci la wax far nag fekk ñu ne booba suratu Maryama wàcc na mu ne ko ndax seen yonentu ba wax na dara ci eh, yonentu yàlla Isa mu jàngal ko suratu Maryama ba muy hegg ci dalika Isa bnu Maryama qawlul haqq lazi fii yamturun rek buur ba commencé jooy ne daal lii ak a niroog tawreet moom foofa la jaaree sax mu gën tuub bëgg yonentu bi lool gëm ko. am na ci soxna soo xam ne bi ko yonantu bi di takk euh, di la tu ramlatu la tu moom la ko yonantu bi bàyyaleexoon moo joxe can yaag teraanga ya naroon naa démissionné sax ci nguuram gi fekk yonantu bi ci ma madinatul munawara yonantu bi ne ko mën ngaa des foofa loo ma sori sori comme ànd nga man ci pas-pas rek jege nga ma bëri na ku jege fekk sori na bëri na ku sori tamit fekk jege na mbir yëpp mi ngi nekk rek ci pas-pas gannaaw si ga nag la ñu ne yoon wakat ubbeeku na ba juróom-ñett fukki nit maanaam ak ñaar mujj nañ gàddaay ci ay góor ak fukki jigéen ak juróom-ñett ñi koy tënkee xayun ñoo mujj euh, maanaam fekki foofa gaa ya fa nekkoon foofu la nekk sax ba dégg na yonent bi gàddaay na ñu takk seeni bagage fekki yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ca madinatul munawara gannaaw sigi buur bi sax day génn àdduna ba muy génn àdduna mi ngi fekk yonent bi ca Madina mu def sàppe euh, digle sax yi ngi defi sàppe mu jiite ko te boobam ma nga ca Éthiopie loolu nag xusuusiyatu la yàlla ko ko jagleel ñu ne dañ koo yëkkateel néew ba ba jàkkaarlook moom man na ko ndax mën naa def tayu mu xaabala gañ ko defaloon fële su ko defee mu taxaw mu toog jàkkaarlook moom taxaw euh, jullee ko waaye ci mazhabu Maalik nag moom nanguwul ngay jullee néew boo tiimut kuñ la mën a tàggee muy sa mbokk tiimoo ko bu ko jullee buy ci masaabu imaamu Shafii yu dafa jàpp na julleeg néew ñaan la ñaan nag foo ko sànni mu yegg ca boromam ba tax na buñ la tàggee sa mbokk mu sori la mën ngaa def ay sàppee wala sàppe wala nga taxaw yow kenn nga jullee ko yéene ko yool ba ñaanal ko ko kon loolu moo ci borom xam-xam yi loolu lañ ca wax kon nag euh, loolu moo dal kon euh, at moomu. Euh, moom Abu Talib yor ko ci juróomi at yi ba lii dal ko ci mu continuer yor ko yar ko ba yonent bi am juróom fukki at yu manqué weer ci la Abu Talib mi wuyu ji boromam ba mu demee bay wuyu ji boromam yonent bi tiim na ko ne ko bàyyi ko sonn ci man nga lu ne defal nga ma ko dama lay ñaan daal nga tudd benn baat rek ma garant la ci sama borom nga dem aljana mu laaj ko ne ko baat booba mooy ban mu ne ko waxal ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi a abu taalib nag ne ko daal damay bañ dem ba génn àdduna di door a tudd baatu seede bi ñi leen koy xasee yaag sama doom yi di Aliyu Jaafar ak Aqil naan seen baay ba dafa saalik dafa dem bay bënd door a génn àdduna door a tudd baatu seede bi moo tax daal man daal duma ko tudd lii daal la wax ba sax moom shaayir la woon wax na ca ay way ba naan allimtu bi anna diina muhammadin min xayri addiyaanil bariyati diina lawlal malaamatu aw xidaaru masabatin la wajatani samhan bi daaka amina su ko defee loola ma ngi koy wax wala qad alimtu bi anna diina muhammadin min xayri addiyaani lbariyati diina lawlal malaamatu aw xidaaru masabatin la wajatani samhan bi daaka amina mu ne man de xam naa ne diine yi bari nañ waaye sikk amul ne diina yëpp diine sama doom ji di sayduna muhammad moo ci gën wallaay su ma ragalutoon yeddaangeeg ay xas yu ñu yëkkati di ko teg ci seen der yi kon de danaa nekk ku tabewu walanteer wu dugg ci diina ji kon bam ne àllimtu rekk tuub na ndax yonent bi nee na képp ku dee xam ne yàlla kenn la rek xam gi nga ko xam rek soo lëggee sa yaram wi dana xaraam safara ci yow waaye ñu ne nag tamit kon tubbihaat na bam ne lawlal malaamatu bu taxutoo nag ragal ak yeddaangeeg la ci xew kon man danaa tabe ci lii nii moo tax kon ñu ne dafa boole tuub ak tubbi loolu kon daal la boole waaye boo demee ci imaamu Suyuti mu ne daal bëgg gim bëgg yonent bi sonn gim sonn ci moom ak liggéey gim ko liggéeyal tax na daal ba mu demee ba dundam bi des ay seconde ay minute tuddul baatu seede bi la ko ko yàlla yenkewal mu tudd ko ci xolam doora dee ba tax na daal moom gëm na ne ci gëm yàlla ci la dee loolu la ñu bëree bare bari gëm imaamu suyuti ñu gëm loola ca la bokk lu ci mun di am daal ku sonn la ci yonantu bi sallallahu alayhi wa ba mu demee tamit bay bëgg a génn àdduna abiyaat yooyu ma wax la moom la wax moom mii nag coonoom ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama jéggi na dayo euh, ku gudd fan la tamit moom dund na daanaka juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñaar moom la dund moom Abu Talib su ko defee tamit nag moom ku njaboot la moo jur Ali ibnu Abi Talib jàmbaari tëdd jooja moo jur Jaafaru Sadiq moo jur Aqil moo jur Ummu Hani ñu ko daan tuddee faaxitatu ak maanaam moo jur jumaanatu ñi ñëpp dal ak njaboot lañ gu bàyyeekoo ci Abu Talib njabootoon dafa njabootoon te néew doole moo tax sax njabootam gi dañ koo séddoo woon arab yi amoon nañu aada ju baax bu ñu amee mbokk mu am njaboot taamul doole mbokk ya dañuy séddoo njaboot ga kenn ku nekk ne naa jël diw kii ne naa jël diw ba ñu séddeewoon njaboot ga nag yonent bi moo séddoo woon Aliyu ibnu Abi Talib moo tax moom moo ko yar moo ko yor mosta jaar ci weddi yàlla su ko defee nag moom génn na àdduna ci weeru koor ulamaa wu siira nag ñoom liñ gëm dañ ne ci kéeféer la dee ak ci mbugal waaye ku mel ni Suyuti yu moom daal nee ci gëm yàlla la dee mu tegtaloo na asxaabul kahfi ba seen dund ga desee da yàlla nelawal daanaka ñetti téeméeri at boo ko jëlee ci beneen wet ga ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent ndax buy samsiya xamariya duñ tollo moo tax alquran ne wasdaadoo tisaan waaye nag ñooña kon yàlla dekkilaat leen ñi dund lañ dund door a dee dee ak dëgg-dëggal nit yonent yàlla Muusaa ya yàlla rayoon na leen rek jéppi sekk fekk seen fan jeexut ba musaa ñaanee dekkiwaat nañ kon mu ne tamit yonent mu ne Abu Taalib mii sonn ci yonent bi ñaara ba am bi avant muy génn àdduna yenki wal nañ ko baat bi mu tudd ko door a dee wala ba mu deexee daal ca barsaq yàlla yenki na ko dekkil na ko tuddal ko baatu seede bi mu door a dee deex ak dëgg ndax danay bëri tamit ñu manquile fii ci xayaatu dunya wi di mottali ko seen ak jaamu yàlla ca barsaq donte foofa jaamu yàlla foofa du for waaye dana bëri ku bon fii lool baax foofa dana bari tamit ku yàqule fii lool defaroo foofa dana bëri ku manquile fii matlee foofa kon loolu la imaamu suyuti yu gëm ca moom noonu la gëm tamit ki ñaari waajuram yu tedd yu sell ya di sayduna abdullahi ak saydatuna saydu saydatuna amina ñoom ñëpp yàlla yenkewal na leen baatu seede bi ñi gëm ko door a dee dee ak dëgg-dëggal waaye bu ulamaa wu siira daal ñoom dañu gëm ne daal abu taalib ci kéeféer la dee loolu Seydil Haaji Malik mi ngi koy wax ne wa ahlu dhal fanni fii islaami talafu wa rajahu mawtahu fil kufri wa niqami kon moom loolu la gëm mu jële ko ci ulama wu siira mawaahibu la daniya boo demee da ko ci fekk siiratu ibnu Hisham da nga ko ci fekk moo tax moom mu jëlee wax ja foofa way ko wane ne daal ñooñ ahlu fànn daal loolu lañ gëm waaye bi yonent bi ne ko tuddal baatu seede bi ma seede la ca yàlla ba mu mujj dog ibnu abbas moom ci boppam moo wax ne jël naa sama nopp bi dëpp ko ci gémmañu góor gi ak dënn bi man ci sama bopp maa dégg mu wax ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullahi door a génn waaye lu ci mun di am yonent bi moom dafa ne ko lam asma man dégguma ko ah, ba tey xadis ba benn baat rek la lam asma dégguma ko moo tax ibnu abbas moom saxal na gëm yàlla ak abu taalib avant muy génn àdduna moo tax mam laa ji malik ngi wax ne man asbatal mawta xibrun aylamul ulama faxlul fuxulati abbaasu ala salami kon loolu la ibnu abbas loolu la abbas gëm loolu tamit la saxal celoo la waaye yonentu bi daal dafa ne ko man dégguma ko kon xat mii ci la ñàkk abu taalib mii baayam yemul ci ñu teg te ñetti fan ci même semaine bi mu ñàkk soxnaam su tedd soo xam ne soxna la waaye yaay la ci kër gi su ko defee ñetti fan lañ rawantee génn àdduna muy sayyidatuna Khadija kon xat ma xat mu méttee métti la maam Khalifa ngi wax seen différence na ñetti fan la suma la ma ata salaasu layaalin maatat ummuna zëhra u mu ne ñetti fan lañ ca tofal rek gannaaw génn àdduna ak abu taalib sayyidatuna xadija mii di soxnaam génn àdduna te sayyidatuna xadija mooy soxna si nga xam ne ñaar fukki at ak juróom la yonentu bi am denc ko ànd ak moom presque ñaar fukki at ak juróom yu manqué yi weer sayyidatuna xadijatu jiitu ko ca barsaq di ko xaar ca aljana war a bokk ëllëg ca soxnaam ya diiram ñaar fukki at ak juróom daal moom kenn dong la denc boolewut koo kenn moom kenn kese waaye gis nga gannaaw si gi nag dañuy wax ne ku ñàkk kër bàyyi dese nga këri nijaay ci la yonentu bi nag war a départ nag laxas war a dem fa seeti kër nijaayam ya mu fekk fa ñett ñoo xam ne daal ku leen tuddee kilifa dangaa juum xanaa duhuñ ay kilifa waaye ku ne fàng rek lañ muy Habib ak euh, maanaam ku ñuy tuddee Habib la fay fekk ak Masoud ak Abdou lii liin man nga wax ne kii mooy président wu dëkk bi kii mooy premier ministre bi kii mooy gouverneur bi euh, su ko defee wala muy président assemblée bi ñett ñii la fa fekk. pour bëgg nag ñi làq ko mu mën a woyal ab xooteem su ko defee ñooña ay ki ne ku ne fàng lañ boole kook mag ñu jëmut fenn ña ak jigéen ñu xamut kilifa ya ak xale yu yarawut ña di ko yuuxoo ko sànni ay xeer ba sës ko ci benn ngédd xeer ya sax am na ca bu rëcc dal ca tànkam ba ba nàccal ko Saydu bnu Xaarisata la àndatoon nag mu waaf ci kawam di ko protéger ca xeer ya foofa daal yonent bi sonn nafa lool ci conn boo xam ne teg na ko ko foofa la mujj rekk Jibril ñëw ne ko sa borom jox na ma ndigal boo ne waaw rek ma boole ñaari doj yi tiim dëkk bi di lax sa bay nii këpp ko ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu dee. ndax ñoom daal yàlla jéppi na leen ci baax ak yonantu beeg yërmandeem ju yaatu ja mu jéggal leen yemut ci jéggalul leen yemut ci layal leen noonu la ko doon seexal islaam Haji Ibrahim daan waxee mu ne jéggal na leen jéggalul leen layal leen jéggal na leen ci yow yàlla jéggal naa leen jéggalul na leen ci allahuma ixfir lahum layal na leen ña fa innahum laa yaxlamuuna su ko defee nag kon law lawla nabiyu rasulullahi laxturimu bi lax laxsa bayni walakin man na min karami noonu la mujj defal leen topp leen ca dara boo demee saqif nag di taayifa yonent bi dana fa sax weer di leen woo waaye amul kenn ku ci ñoom ku ko gëm lañ gatandoo xootee ba daal mooy ay xeer yu bàyyee koo ca mag ñu jëmut fenn ñaak jigéen ñu xamut kilifa yaak xale yu yaruxut ña di ko baraawoo ko yuuxoo mu gën nàccal tànkam ba ba xaañ sedut nu xaarisata loola maam xalifa nges wax na ko ne wa aqaama nabiyu shahran ladayhim wa aba illa kufrahum lu amaau wa jafawhu wa uddimati rijulu minhu bil xijaari sibyaanu wa sufahaau wa waqaahu sayd ubnu xaarisata ram yafadathul ajdaadu wal abaau loola boo demee ma nga ca miraatu safa maam xalifa na ñu continuer ñoom ñaar di xettali ko ci abdu yalilin ak masudin ak xabibin euh, waaye daal dëgg-dëgg daal ci la ñu dof ña xale yaa jigéen ña mag ña door di ko dëddu mu toog ci benn roon garab nag di noppalu ñaari doomi rabbi ataya di shaybatu ak utbatu séen ko ndeysaan xam ne kee daal ku tumuranke la ku sonn la ku xaajooxoo ku ko dimbale la ñu yónni seen benn xalel bu ñu tuddee addaas jox ko meññantam tàndarma ne ko kële ñi seen daal dëgg-dëgg gis nañ ne ku sonn la demal nga jox ko ma ji mu xéewlu ci fekk na ñoom ñaar ñooñu di utbatoog saybatu ñaari doomi rabia lañ rabiatu di doomi abdu samsin abdu samsin di doomi abdul manaaf kon ñoom ak yonantu bi daje nañ ci askan ci abdul manaaf ay mbokkam lañu su ko defee nag jox nañ ko ko yonantu baa ngi cay xéewlu laaj addaas ne ko waaw yow foo dëkk mu ne ko maa ngi dëkk benn dëkk bu ñu tuddee niinuwaa yonantu bi ne ko is kay amoon naa sama mbokkam yonantu mu fa dëkkoon ñu ko daan tuddee yunus nu matee Haddaas ne ko da nga koo xam mu ne ko xam naa ko sama mbokkam yonantu la ca la moom mu mujj daanu këpp commencé di fóon tànki yonantu bi di ko xeeñtu ñaari sangam yooya nag yuuxu ko ne ko yow kii man fee hendu tey di la njabar dawal nga ñëw toppatoo sa liggéey bi. moom nag ci la bàyyi ñooña dem continuer toppat bàyyi fa yonantu ba continuer di toppatoo liggéeyam ba kon daal njàqare gi dal ko ak coono bu métti bi dal ko yàlla nag ne ko bu la waa suuf réeree bu la nit ñi réeree kaay ma xool ngan asamaan dana la xam mi ngi lay ngéejuhu malawul axlaa ña fa dëkkee ci malaaka ya ña ngi lay ngéejuhu jinne yi sax ña ngi lay ngéejuhu su ko defee kon nag nit ñi ñoo ànd ak seen dëgër ak bopp ak seen ak mbon comme ñoom ñoo la réere loolu ñu ne moo sabab yàlla recevoir yonent bi ca kaw su ko defee léegi defal ko gannaaw jafe-jafe euh, moom yomb-yomb gannaaw naqar euh, bànneex gannaaw xat-xat yaatu-yaatu loolu la ko yàlla defal ci loolu ñu ne ñett yi daal la borom xam-xam yi tudd ne mooy sababu rañaan gi xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi incha allahu danaa sof ak yow ndax yoon wa jeexagut ba mu bàyyeekoo foofa naka lay demee continuer war a delluwaat makka naka la ko Mut'im nu addi yi war a garantie naka la koy jinne yi di fekkee ca la naxlatu di juróom-ñaari kuréel jinne yi ba war mujj tuub ñoom ñoo ñoo ko campagne ñoo ko campagne ak yeneen jinne yi ci des ñoo ñooy ay kàngaamam ci jinne yi comme ni Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Ali yu nekkee kàngaamam ci nit ñi ni Mikaayil ak Israfil ak Asrafil ak Jibril nekkee kàngaamam ci malaaka yi mu tekki na yonent bi lu ne am na ca kàngaam loola suba incha allah mooy nekk suñu bopp waxtaan wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin